الشيخ محمود الفاضل اك الشيخ حمزه بن شيخ عبد الاحد نانا توفيق ام مام لن تاب جي بير دا مام مو ام ديغال مو امون ديغال غام تي تي تي بارب بي نونو فك سكو waaw moom si moom moom mii ak ak sëñ Abdul Ahad mii ak ñun nii nee na loolu nag cant gu rëy a rëy la nee xéewal gu mag a mag la nee na ñoo ngi leen di sante suñu borom bu baax a baax moom mi nu booleeg sëriñ bi di sant sëriñ bi muy suñu lépp di leen sante di leen santewaat sëriñ bi ci tawféex gii nu bokk noo ngi leen ciy santee sëriñ bi lépp mooma lépp pàgguteefam nan sant te ne ci rekk nii mu demee rek nii lu weesu rek nan ko xeeb nan ko xeeb ci leen jëm sax ci sant dàkk sax dàkk ci sant rek ak gën a soññ suñu bopp lu nu weesu rek nan ko xeeb tabaarakallah jërëjëf sant bu baax na ñëpp tàllal na ñëpp tàllal mbàkk jërëjëf amin amin nit ñi nit ñi jërëjëf Mbacke jërëjëf jërëjëf Mbacke jërëjëf waaw na ngeen amuk daal ba kilifa yi jóg ma noppi